ci jour làmb ji ñu gis Boy Niang ne ci stade bi am ay nit yoo xamante ni ñu ngi ci beneen écurie wala ñu ngi ci beneen gox hmm. ñëw di ko jàppale ku ci mel ni Reug Reug gis nañ ko mu ñëw soutenir ki nga xamante ni mooy booy Niang hmm. diggante Reug Reug ak booy Niang waa xam nga Reug Reug moom dafa ñëwoon face à face la doon ñëw moom ak Sa Thiès mais bu fekkee ni relation bi nga xam ne am na ko ak booy Niang ndax moom presque soo xoolee mosuma dégg mu xalaat lenn loo xam ne pour ay bëreeg booy ña wala yu meloon noonu dèjà ñoom kilifa yi ñooñu ñuy àndal ak yu mel day am esprit boo xam ni esprit de solidarité la parce que diggante caaro euh, yi ak Pikine daanaka benn la ndax ci dép même département bi la. ñëpp ngi naan deux cent pour cent deux cent pour cent Pikine bi. waaw jàmm gën dañ cee wàll si bokk ci. waaw xam nga booy Niang ak Siteu moom Boy Niang ak Siteu laay wax. Mhm. ñoom yàlla moo leen boole parce que dañoo bokk benn koñ maamu booy Niang fi mu am kër ak fi Siteu dëkk benn la. kon booy Niang ak Siteu lamb boolewu leen. mukk ak Reug Reug. Reug Reug tamit loolu laa jàpp man parce que moom waxagul ne du bëreeg moom yaa ngi waaye li muy doxal moom dangay jàpp ni ñoom du ñu bëri. mais Reug Reug gàllaaj bi mu doon suul ci stade bi di ko def. Hmm. ba tax démb CNG convoqué ko. Hmm. pour Balla Gaye la woon Boy Niang la doon jàppale si. <laughs> non non non non. am na ñu ne sax jox na Boy Niang biteel. non non non non non man dama lay wax leer mbër yi danañu man mii di manager am hmm. ñàkk naa loo ne ci combat am tey gisul yoruma fas yoruma butéel di ko jox. billahi wallahi wa parce que dafa am combat te dafa war a bëri si foofu lay bëree mais pour yëkkati gàllaaj di ko jox Boy Niang ku ko ku na kenn won ma benn film wala dara yuy wane ni dëgg jël na butéel jox ko Boy Niang la mu suul foofu ñoom kii euh, waa kër Balla Gaye avant combat lan la ñu suulul ci bi yow toujours yaa nga sax. bi nga ñëwee da nga gis naa la nga jiitu. waaw dugg waa sa waa dem di sulli ji gàllaaj yi. waaw dañoo dem directement au pif bi wala ngay man man sulliwuma de. Eh, sulliwoo. waaw xale ñu ci mel ni ñoom macha allah. waaw loolu loolu loolu am na. Ah. parce que ñoom ñoo jiitu ci stade bi di suul seen i suul mais am na ñeneen ñu leen fa toogaloon di leen wax ne fii fii dañ faa suul mais ñoom avant làmb ji ñaata yoon lañ ñëw ci biir stade bi rëg-rëg tamit c'est la même chose moom dafa ñëw occasion la pour mu ñëw ci biir stade bi muy ndaale lu mu suul foofu ci biir bi xam nga man mënu ma nangu arbitre sax nee na ma ñii am nañ droit suul mais amu leen droit suuli ko bu ngeen ñëwee da ngeen war a suul kese est-ce que prestation euh, euh, appréciation boobu arbitre war na ko wax. noo du ma wax turam de mais moom su ma dégloo xam na lool xam na ni maak ak moom waxante nañu lool ah. waaw. parce que su ma waxee lii day mel ni dama koy weer mais moom wax na ma ne sa gars yi waruñoo ñëw di sulli li nga xam ne loolu la fi mbër mi suul dañoo war a ñëw suul comme moom. mais waaw. Balla Gaye bi mu ñëwee suul. waaw Bombardier mu duggee dafa jubal ci gàllaaj directement Balla Gaye. sulli sulli loolu loolu làmb la loolu yoonu arbitre newu ci yoonu CNG newu ci tant xeex amul waxuñu la nga xëpp ni dara amuloo ci droit. yaa ngi dégg mais ñëw suul mu suli kooku yoonu kenn nekku ci parce que ci làmb lañ ne ou bien nañu génne mystique ci làmb nit ñi ñëw bëri si noonu man la ma leen proposé woon bu ñu ko defoon loolu lépp du fa am kenn ku ne sa cummikaay ngay jógee tuuroo fa lu la neex takk fa lu la neex suñ la wooyee dàll sax du dugg waaw mais père làmb ji tam jàll coow lu bëri judd boo duggee géejawaay foo dugg ñu ne la Yaxya Joob Yékini ni am ni indi ni dafa jàpp ci combat bi digganteem ak Balla Gaye ba bëree ba léegi diggante Boy Niang ak Yékini est-ce que est que est-ce que ñu ngi doon déggante ci combat bi wala la moo nekk seen diggante ñoom ñaar. xam nga am na ay relation yoo xam ne mën naa bañ a si ci ñun parce que am na ay nit yoo xam ni dañoo jege booy Niang ba pare dëkk Joal ah. am na ñoo xam ne dañoo jege booy Niang ba pare dëkk Joal. ci làmb ji. waaw. waxuma sax sax ci làmb ji yaa ngi dégg. làmb yu bari am na ay mbëru Joal yu dëkk yu nekk école de lutte ba. mais li ñuy wax mu ngi naa ñu ne ki ngemb Boy Niang. ñoo hmm. la dëkk. waaw yow ñaata yoon nga dégg non xaaral rek ñaata yoon waxuma ñoo joor la ngemboo de daanaka rek mu wax la waxuma la fu mu ngemboo <laughs> mais dama ñaata yoon nga toog booy Niang di gërëm Île de Saloum di lim dëkk yi. mais diggante Yékini te loolu ba mu ko dalee def ba mu ko dalee def laa la wax booba tolluwul fii mu toll nii no man damaa bëgg lépp lu ma wax nañ jël archive yaa ngi dégg. Boy Niang ba mu dalee lim il yi di leen gërëm loolu yàgg na kon duñu ñëw ba tey mu daan Balla Gaye rek ñu naan diwa ko jàppale wala nangam ak nangam. mais man gis naa ay gaalaaj yoo xam ne Bombardier indi na ko ci làmb te tey ji gis naa kii yor ko. Balla Gaye yor ko est-ce que loolu tax na ñuy xalaat naan Bombardier ko jàppale. mais mais mais mais waaw Boy Niang seen dernière face à face tudd na ci Bombardier waa waa kër Boy am na ñoo xam ne tey defoon nañ ay vidéo hmm. ci TikTok. ne nañ ci génnee Bombardier ndax Boy Niang tamit gërëm na ci Bombardier ci dernière face à face am. waaw wax ci Bombardier. waaw ça veut dire que Bombardier ak Yékini dañoo jàpp non man mënuma comprendre déggoo li ma man gis naa ay gàllaaj yoo xam ne Bombardier da ko doon indi bërki démb Balla ko indi. mais sëriñu Bombardier mooy jàppale léegi Balla waaw mais léegi nag loolu ñun bu ñu dugg ci yooyu ñun bu ñu dugg diw moo jàppale diw. wala diw moo jàppale diw. mais tey géejewaay yëpp dut nañ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Yaxya Jóob Yékini. waaw mais ñoom ñoom dañuy tooñ. rek gis nañ sorti de fils de Balla. waaw def na ci. waaw ki nga xam ne lambaloog xaw ma. dama def na ci sorti. ñooñu nee na na leen Yékini baal ndax. na leen jéggal parce que lépp lu Balla lu muy jànkonteel tey Yékini moo ko ko teg. fils de Balla mu ne Yékini moom moo leen wax ne leen. même bu làmb ji jeexee jàmm du am seen digganteeg moom comme kon yikki moo leen ko. damay wax rek benn affaire. man ñoom ñiy wax nii yëpp Balla moom doo dégg mu ñu ne Balla Gaye ko wax Balla nit la koo xam ni ku ku ku ku ku saint la noobul la li waral moom rakam daan ko mu dem ba ci plateau ba fekk ko fa saafonteeg moom te waxul dara loo xam ne ñaaw na ñeneen naan kii dafa feebar moom déclaré wul feebar ñii daan diwoo ko jàppaleeg nangam sangam Balla gay daal c'est une personne boo xam ni lépp lu mu am rek mérité na parce que noonu la dundee carrière ba mu jeex tàkk daan ak daanu la yemale am na palmarès bu riche yaa ngi dégg am na titre boo xam ne moom la ñëpp di tiitaroo ba pare def na ay investissement investissement yu mag ñi nga xam ne nag ñoo nekk di wax seen wax yooyu ñooñu nañ dem ñu toog duñ jéem a def carrière comme moom